en tant que religieux sama bàyyi di woon mu xaddamu Cheikhu Tidiane di xalifa ma yaroo ci keppaaru Cheikh El Hadj Abdou Aziz am na fu réew mi di toll parti dootuma tënk loolu kum neex nga nangul ma ko kum neex nga bañ ma ko nangul moo tax bi may ñëw fii ma ne ñëwuma fi tey en tant que ku bokk ci parti waaye dama ñëw pour waxtaan ak réew mi en tant que koo xam ne réew mee ko defal lépp koo xam ne produit sénégalais la cent pour cent donc jàpp nga ne réew mi toll na foo xam ne euh, war nañu transcender les clivages sociopolitiques kuy doomu réew mi da nga war a teg mbiru parti teg mbiru parparloo pour taxaw ci intérêt réew mi foofu lañ toll waaw loolu moo war a am sax parce que réew mi moo ëpp doole Macky Sall moo ëpp doole moo ëpp doole Ousmane Sonko parce que réew mi boo ko xamee mënoo ko mënoo ko yemale ci ay parti dafa fekk ni nag àdduna boo gis dafa am organisation maanaam ñi tànk ñi parti tënkit da nga leen koy nangul waaye nag am na loo xam ni léegi léeg da nga koy def histoire moo lay jox raison parce que nit ñaar moom fii yaa ngi wax di sooraale nit ñi kontaan nañ walla mer nañ yow am warugoo wax nit dangay wax xool ba xam sa boroom mi tax ñu bind jaam yi kontaan na walla mer na ça veut dire ku àgg ci niveau boobu mbirum mbirum mbiru li nit ñi di xalaat dootu la tënk xam nga ñun yonent bi lim nu jàngal mooy la raxata fi dunia wala najaata min an naas mu ni àdduna kenn mënu fee noppalu boo demee ci Coran da gis yàlla di wax ci alquran ni nous avons créé l'homme pour une vie de lutte la xadd xalax na insaana fii kabat nit yàlla daf ko bind ci xeex xeex coono yonent bi ni laa raaxata fi dunia wala najaata min an naas nit ñi kenn mënta mucc ci ñoom waaye àdduna bi kenn mënu fee noppalu moo tax sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu nee na bi mu déggee loolu ci la noppalu xam ne lépp lu muy def rek day jël yàlla teg ci kanam yàlla moom boo ko tegee ci kanam di nga dem ba nit ñi xam ne yow yàlla moo taxoon ngay wax te ragal naa fi réew mi toll tey mënta ñàkk nag am ñu jóg jël seen ay responsabilité ak lu ñu mën a dégg ak lu ñu mën a gis wax ngir yàlla rek ak lu sauver Sénégal parce que dama gëm ni réew mi dafa dugg ci guute goo xam ni li ko ciy génne bokk na ci courage bokk na ci xam-xam waaye bokk na ci fit parce que tey Sénégal fi mu toll nii ku amul fit doo wax ku amul ngor doo wax ku ragal ku la mere doo wax ku ragal kaso doo wax te man yàlla dimbali na ma yooyu yëpp ragaluma ci benn. ndax xam naa li ma réew mi defal man